waa maa ngi ciy yëg lu baax a baax a baax ah macha allah dañuy ñëw sa kër waaw maa ngi ciy yëg baax a baax di yëg sama bopp tubaarkàlla ndax dara manqué wul ci ravitaillement bi waaw muy ceeb bi dañuy am euh, soble di am suukar di am café di am euh, karaw di am caagri ah dara manqué wu ci xorom dara manqué wu ci nga xam ne koor gi loolu da cee baax waaw. ah li ma leen wax live ah di ko ñaanal di leen ñaanal ah ñu yàgg fi lool nag te yàgg koo def ndax danoo ñëw Sénégal dimbali gox bi ah ñun Djiddah Thiaroye Kaw na a ah, mu jàpp lañu at mu jot ñu koy jot di ko jëriñoo daanaka koor gi moo ñu yore di ko ñaanal yàlla yokk bu yëg ko. a ah dañuy euh, tubaarkàlla ndey pend kay lu ñu ko jox mu joxe ko. li mën a wax ci moom xale la macha allah loxoom gudd na tubaarkàlla mu indi di wuti di indi te bugg ci dara ñun ñoo ko yar. ah da ngay dina luñ ko jox ñu ko jox te dina ko jox ñi ko yeyoo tamit ñu ko jox ñi ko yeyoo. gox bi wut ci xarit wut ci àndandoo wut ci ndey wut ci kenn ñi ko yeyoo daal mi ngi leen koy jox tubaarkàlla macha allah. tubaarkàlla kontaan noonu ndax li magam ci wax fii léegi rek tubaarkàlla seen kër dugg fa. ñi mu ko war a jox rek la koy jox tubaarkaa ñu gis suñu bopp suñu njaboot gis ci sa boppam tey nag ñi mu koy jox dañuy dugg seen dañuy dugg sa kër laaj la enquête la sa jëkkër gaañu na nga wax ko jaboot nga nga wax ko social nga nga wax ko waaye noonu lay bindee ay noonu lay yónnee ñu ko bind tubaarkàlla ba ku fi toog tey ñi fi toog tey sa xamante wuñu macha allah xamante waaw ndax fii ba jidda caaray kaw romb na baxdaat wuti na géejawaay ku ci war a am rek te te ko rek jox na la ko wut ci lu neex kenn wut ci lu neex xarit loolu nag tubaarkàlla macha allah dañuy ñaanal yàlla na loxoom gudd yàlla na gudd fan te yàgg koo def ndax juróom juróomi ci la ñuy toog fii mën a tubaarkàlla daara yi la koy jox ak ñi nga xam ne la yàlla xam doy na bu nu xëyee mën nañoo bañ a teg cin mu leen koy séddale juróomi tubaar tubaarkàlla foo ko tegee xam na ni te it nag lu baax lay jënd yàpp day nag jën yu baax macha allah dara màngo fi ba bu talaata jotee daal dina am ñoo xam ne dañ ci gis seen bopp bu baax a baax a waaw. loolu la ñuy ñaan di ko ñaanal di ñaan live yàlla na ko yàgg def te it nag ñoo koy ñoo ngi ñaan live daal yàlla na sax yàlla na yàgg ndax population bépp la koy defal budul caaro yi rek budul jida caaro yi rek kon live ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yokk. lim ñu joxe yàlla na yokk di ñaan Ndeye Penda Gueye di ko ñaan yàlla na yokk ndax ba mu day def yàgg na waaw live ñëw nag dolli dolli ko doole waaw ñoo ngi koy ñaan daal di ñaan Baye seex Gueye papaam a yàlla na yàlla guddal fanam ndax bu ko bàyyi woon it loxoom du mën a dox ay tànk ba loolu yëpp ñëw fi ñu ngi koy ñaan yàlla na yàlla guddal fanam suñu délégué quartier boo xam ne moom ci boppam sax dañuy jàppale ci dooleem ak wërsëgu wërsëgu njabootam loolu laa amoon bi nag waxaale naa ñëpp ñu fi toog ci baas salaam di leen sant nag yéen ñi ñëw taxaw di def di jël suñuy wax ñoo ngi leen sant seen liggéey yàlla na yokk ba yëkku barke sëñ Fall loolu laa amoon lu ma ciy wax.